sëriñ cheikh awa balla mbàkke sëriñ cheikh awa balla mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1900 ci dëkk bi ñuy wax guy ngoraan guy ngoraan mi ngi ci mbàkke bawal ci diggante fi ñu denc ay saak saajo foofu la dëkk boobu di guy ngoraan nekkoon ndax ci atum 1895 bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi mi ngi bàyyi maam ceerno ma faati mbakke ndaamal daaru ci dëkk boobu di mbakke baari jolof ginnaaw bi nag la ko doon wax ne xoolal foo mën a yor lii di njaboot gi ba ma delsiwaat ci la maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru jóge ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof ñëw ci mbàkke bawal dem nag ci wetu fi ñu denc ay saak saajo moo nekk ci wetu ilipoor bi jàpp ci dëkk bii di boofel diggante boobu la ay saak saajo nekk diggante boobu itam la maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sance woon dëkk bii di guy ngoraan guy ngoraan googu nag maam ceerno ibrahima faati def na fa diir foofu itam histoire bu baree baree bare ci maam ceerno ibrahima faati xew na fa ndax kat fa ñetti doomu sëriñ tubaa seexul xaddiim sax maam Thierno Ibrahima Faty tiitoon na ci ba jort ne ñoom ñett ñëpp dañuy génn àdduna muy cheikh Mamadou Moustapha Mbacke cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak kii di cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke li gën a métti itam ci dundu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke itam ci dëkk boobu la ko dale muy li nga xam ne nii moom mooy ñàkk mën a dégg gi muy tëx gi ci feebar boobu leen daloon foofu ci dëkk boobu di guy ngoraan xam ngeen foofu la maam Thierno Ibrahima faati Mbacke naroon a dëkk ngir xaar ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim garage yu Dakar bi foofu itim la doomam ji di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke feeñe lii di jamono ci atu 1900 mu tudde ko rakkam ja maam Cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm ñu koy wooye Sidi Moxtaar Mbàkke maam Cheikh Anta Mbàkke doomu soxna Awa Balla Jóob la ak kii di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom am na ñu mbokkal kii di soxna Awa Balla Jóob ñu ràññee ci sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke mi nekkoon taawu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal amal daaru yi bi mu am na keneen ku mu bokkal kii di soxna awa balla jóob ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ mbàkke ibnu soxna awa balla jóob ak kii di maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak seen benn jigéen ba soxna faati mbàkke moom soxna awa balla jóob ak kii di maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru soxna faati mbàkke awa balla jóob mii moo meññ ku ñuy wax soxna say jaxate soxna say jaxate mii moo meññ sëriñ cheikh say moom sëriñ soxna bu mbàkke ginnaaw maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru kii soxna awa balla jóob bàyyi ko woon na ci dëkk boobu di daaru muxti ñëwaat nag ci tuubaa ci quartier bi di kër ñan am fi benn doom bu ñuy wax sëriñ dëkk ñang ibnu sëriñ moodu faajama ñang bu kër ñan sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñett la bokkal soxna awa balla jóob ak moom muy ñeent ñett ñi ñoo bokk soxna awa bal jóob ak maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru kenn ki soxna awa balla jóob dong lañ bokk muy sëriñ dëkk ñang ibnu sëriñ moodu faa jama ñang bu kër ñang sëriñ dëkk ñang mii nag bu sëriñ moodu faa jama ñang ak kii di soxna awa balla jóob moo meññ sëriñ xaadim ñang ak ay rakkam turandoo maam cheikh anta bi di sëriñ cheikh awa balla mbàkke bi matee dal lii alxuraanul karim waajuram maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko dalal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko jébbal kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke mu wéyal lii di am njàngam ginnaaw cheikh mamadou moustapha mbàkke nag lañ ko jébbal ku ñuy wax sëriñ moodu moxtaar jóob foofu sax la mokkale lii di alxuraanul karim ginnaaw sëriñ moodu moxtaar jóob nag la demoon ndar di fa jàng nag lenn ci fànni xam-xam yi ba géeju fa lool ginnaaw ndar nag lañ ko jébbal sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko yar moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke ci loxoy sëriñ la ba ni mu jotee ngërëm moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke keroog bi ko sëriñ tubaa seexul xaddim xadim di gërëm aw fas la ko jox wu tudd na bind ab lettre jox ko di ko wax ne soo demee nga dem ci dëkk bii di mbàkke kajoor kër ga fa sa waajur wa sancoon di maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru keroog bi cheikh ibrahima mbàkke bu mbàkke kajoor génnee àdduna kër googu mu nekkoon soo demee nga yeesa laat ko te nekk fa te soo demee nag soxna faati madun jóob moomu di doomu soxna assu mbàkke mbàkke kajoor nga jël ko dëkkoo ko cheikh ibrahima faati ñang mi nekkoon sa mag moom moo ko yoroon bu leen maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru waaye bi muy génn àdduna maam Cerno mi ngi fi loolu moom moo taxoon Seexul Xadim di ko wax ne boo demee nga jël soxna Faati Madun Jóob moom di doomu soxna Astu Mbàkke Mbàkke Kajoor te nga dëkkoo ko kon loolu moo jotale soxna soos ci Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke lool itam tax na relation bi mu gën a am ak kii di Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam ci la bokk muy bokk guñ bokkoon dëkk ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor loolu itam moom moo tax itam ñaari yoon kii di Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke tudde na ko ko doom liggéey boole koog nag teel a nekk ko ubbeeku ci jamono ba tax na réew mi nag dëkk yu baree bari teel na fa am lii di kër ak lii di relation ci yenn ci mag ñi ci suuf sii di bawal ci dëkk bii di bàmbay amoon na fa lu tollu juróom ñaar fukki tooli àllarba yoo xam ne nii sorente wuñ dara dara ci dëkk yi wër Bambey mbooloo mu bari itam seexal na leen ci tund woowu di Bambey moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Guèye ci dëkk bu ñuy wax Njaataan sëriñ Ibrahima Faye ci dëkk bu ñuy wax Siñaan sëriñ Masayer Gom ci dëkk bu ñuy wax Kër Massaer sëriñ Ousmane Diagne ci dëkk bu ñuy wax Njomp sëriñ du Faye ci dëkk bu ñuy wax Fetto ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima jaañ ci dëkk bu ñuy wax Njomp ak ñeneen ak ñeneen ñu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke defar ba ñuy defaree ginnaaw góor yàlla yooyu mu defar ba ñuy defaree nag mu wéel aw nekkinam di jàng ka jàngale di yar nekk nag ubbeeku nag ci àdduna bi rawatina ci réew mii di senegal nekk nag ab liggéeykat itam bu ràññeeku ba tax na itam sànc na dëkk yu takkoo takku ci biir réew mi ak lii mi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru lii di màkkatal mukarama itam dem na ko ci atum 1951 keroog ba muy dem ci aj gi ñii la àndal ca aj ga ñu ràññee ci ku ñuy wax cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack ak taawu cheikh Ibrahima Niass di sëriñ Abdoulaye Niass ku ñuy wax sëriñ El Hadji Cheikh bu Cilmaxa sëriñ Mamma Dieng moo nekk waajuru Pape Dieng bi nekk DG bu Senelec ak ku ñuy wax El Hadji Yande Diop te ñépp gën koo xam ci cheikh Murtada Mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci ajug ci aj googu sax way na ko ca ay way Cheikh a Niass mi ngi wax ca waya di wax ne kim àndaloon ci ajug ma gi de doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daru la te ku sax la ci jaamu suñu boroom te ku bëgg itam lii di askanam la ñu teewlu way yim ko way rafaxtu fi nuski mujaawira salilu cerno daama faakira wajadtuhu fi lxilmi maa yuxki jabala lillahi durruhu faaxa duwala ginnaaw way yooyu ko ibrahim ibrahima ñas way bu kaolack tañ àndoon ci ajug màkka gi kii di cheikh moussa ka bi sëriñ cheikh awa balla mbàkke jógee màkkatal mukarama fekki woon na ko nag ci dëkk boobu di daaru marnaan ginnaaw bu mu demee ziyaare ko saafonteeg moom itam defoon na ay bëyit ci ajug màkka googu sëriñ cheikh awa balla mbàkke aji woon ñu teewlu way yi ko cheikh moussa ka way ginnaaw bu mu jógee màkkatal mukarama tam ziyaare ji ko wahdahu ndegam mënunoo dem makka seex aj na mar naana saxoo sant war na jaam ni yàlla ni faskuru ajaale na tuubaak moxti ak daaru mar naana si gil nga samak alxaaji fallu ak basiiru na si gil donay maam cerno seex muudu xawaana bayit yooyu nag la ko seex mu ka way xasida gi ko seex mu ka way ginnaaw bi mu jógee màkkatal mu karama bayit yi nag ëpp na lii ñu leen dégtal dañ leen cee jukkil rek lii ca lenn ca xasida ga ku soxla xasida gépp nag boo demee ci njaboot gi loolee lenn ci ponk yi suñ borom santaane ngir ñu jaamu ko mu bokk ci lenn di aj màkkatal mukarrama ginnaaw bu mu ñibbisee nag ci aj googu ci atum 1951 ci atum 1952 sax màggal giñ koy defal sabab gi mooy jóge màkkatal mukarrama moomu mu ñetti fan itam xarit nag la egsi waatoon ci réew mi bis boobu sax lañ koy fàttaliku mu nekk nag liggéeykat bu ràññeeku sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sanc na nag lii di ay dëkk ñu ràññee ci dëkk bu ñuy wax daaru marnaan ci atum 1933 la ko sanc ci ndigalul waajuram maam Cerno Ibrahima Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci atum 1952 sanc na beneen dëkk buñ tuddee Touba Roof ci atum 1959 jàpp 1960 sanc na beneen dëkk bu ñuy wax daaru Wahab fa la dël sax kii mu dëkkoo woon di soxna Maymunatu Mbacke bintu Sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci atum 1970 sanc na dëkk bu ñuy wax daarul Minnan pett amoon na fa sax lii di ay daaray daara ci dëkk boobu ak yeneen ak yeneen ni dëkk wala ay daara yum sancoon dëkk yu mag yi itam dëkk yu bare bari kii di Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke kër ñu ràññee ci dëkk bii di mbàkke kajoor xam ngeen na kii di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu sëriñ ibrahima mbàkke bu mbàkke kajoor lii di àdduna sëriñ tubaa seexul xaddim xamaloon na ko ne na dem ci dëkk boobu di mbàkke kajoor nekk fa ba ñu ñaanal wala ba ñu taxawu seex cheikh ibrahima mbàkke ba noppi kër ga fa maam ceerno ibrahima faati mbàkke amoon ndaamal daaru sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo ko mujje loolu sax tax na ginnaaw ba mu fa nekkee la gën a am ak relation kii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tax na cheikh ñaari doom ki fi mujj mooy ki nekk xalifa général des mourides jamono ji di sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke ginnaaw mbàkke kajoor googu itam kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke amaatoon na kër itam ci dëkk bii di xam naan ginnaaw xam naan itam dëkk bii waajuram sancoon di daaru muxti itam kii di sëriñ cheikh balla mbàkke amoon na fa lii di kër dëkk bii di mbaaba garage itam sëriñ cheikh awa balla mbàkke amoon na fa kër département bu bamba itam amoon na fa lii di kër ci commune ba capitalu sénégal itam di ndakaaru sëriñ cheikh awa balla mbàkke amoon na fa kër dëkk bii di tiwaawoon itam sëriñ sëriñ cheikh awa balla mbàkke am na fa sax lii di kër ndax njëkkoon na faa am kër kër ga ginnaaw bu cheikh mamadul basiir mbàkke soxlaa lii di kër ga la ko sëriñ cheikh awa balla mbàkke jébbal lii di addiya ginnaaw bi nag la toxuwaat tuuti sancaat geneen kër foofu ci tiwaawoon ba tax na ci tiwaawoon ci dëkk boobu sax am na quartier buñ fay woowee kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke muy quartier sëriñ cheikh awa balla mbàkke ci tiwaawoon ak yeneen ak yeneeni dëkk yum amoon lii di kër moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke kon ku teeloon a am gis-gis la ci réew mi kii di cheikh ibrahima Diop karaman nekkoon ab bindkat nekkitim ku daa jàng lii di ay xasida gisoon na jëfi sëriñ cheikh awa balla yooyu ci dëkk yooyu mu sanc ak kër yooyu mu am ci biir réew mi bam def ci lii di ay way ngir jagleel ko sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñu lu way yi cheikh ibrahima Diop karaman wayoon ci sëriñ seex awa balla mbàkke ci mbooleem dëkk yi mu sanc ak dëkk yim am lii di ay kër ñu teewlu ko la mu def fa daaru na xeeti lu ngeen maam Cerno Faati sanc daarul moxti moxtil falaahi loolu buñ ko fàtte Seex Awa Balla sanc daarul manaan def fa ñaari teen naa muridi kumar naan Seex Awa Balla sanc Tuubaa Rauf sellal ko muridi ñëw di boobu Seex Awa Balla dellu dem te waawoon dekkil cosaanam may yépp di baawoon ci kaap la am kër fanu naa Dakaaru di woo muridi ñépp ñépp waaru weddi lii nga laaj ko Ibra Jaxate mooy woo muridi te loolu maa waxate ñu naa bayit bayit mu del si Bambay sanc kër danaa murid yi bu kenn mooy amoon na kër fa mbaaba garaas di maggal am kër fa am kër fa Jurbel ya xaw a balla daana dem ba banjul jàll baag ba jàlle gaa yi banjul ya xaw a balla moo safoon murid yi ci aw meloom ci ay jikkoom xarit yi xam-xam ba woon ci cerno faati mbër ma yeexa ko doon nu aw ca tànki mbër ma bayre ba woon ci naar ba siidi gaawaan yeexa ko doon nu ay mayam di baawaan jikkam la daa waxtaane moo di yaaram xar baax la daa tëggoo nee leen ko alam wàcc nga jaajëf balla xay saag saajo mat kon way yooyu la ko Cheikh Ibrahima Diop Karaman way Cheikh Ibrahima Diop Karaman nag yàlla na ko suñ borom fay te yokk ay leeram ci dara darajey xasiday seexul xaddim yim daa jàng sëriñ Cheikh Awa Balla nag ci loolu la sax nekk na ku teel a ubbeeku itam ci àdduna ginnaaw bu mu sancee ay dëkk bari woon na itam ay relation yu mu amoon ak mbooleem kilifa yi nekk ci biir réew mi ndax kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Touba seexul xaddim moo ko jàngal bii di caatum sëriñ tubaa seexul xaddim matee dem lii di kër mu jébbal ko kooku di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ci daarul muxti di soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim kii di cheikh mamadul faadal mbàkke moom itam amoon nañu ay relation ba cheikh mamadul faadal mbàkke sax faboon na doomam duppee kii di sëriñ cheikh awa balla muy sëriñ cheikh awa balla mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke kii di cheikh mamadul bashir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim mook sëriñ cheikh awa balla mbàkke duppeewu ko doom waaye amoon nañu ay relation yu yéeme ba ñaari boo masaa gis gis kii di cheikh ma bachir da danga gis kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ca wet ga mook sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ba tax na itam bi sëriñ cheikh awa balla mbàkke amee kërug tiwaawoon te cheikh mamadul bachir doon sàkku ci moom ne ko soxla naa lii di kër ga da ko koo jox lii di addiya ba boo demee fii di tiwaawoon ñoom ñaar seen ñaari kër yi ñoo jàkkaarloo séq lii di raay bi te itam lu ko jiitu am nañ ak mbokk nag ci kokki ndax kenn ku nekkat sa waajur jóob sant te kokki la cosaanoo te ci lii di wàllu waajur wu góor itam ma faati ak sëriñ tuuba seexul xaddiim ñoo bokk mammoor anta sali mbàkke ba loola itam tax na doomu cheikh mamadul bachir bii di sëriñ mustapha mbàkke bachiru tudde na kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke lii di doom ba bi sëriñ bachiru mbàkke génne lii di àdduna ci atum 1966 kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke am na ay fan ci quartier bii di tuuba daarul minam ngir taxawu kii di sëriñ mustapha mbàkke bachiru ba tey ci kóllëre ñaari kër yooyu diggante daaru minam ak daaru marnaanu sëriñ cheikh awa boobee lii di organisation màggalub Tuuba wala lii di kàddoom jébbaloon ko kii di sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke bokk na itam ci ñi daa jàppale bu baax a baax a baax sëriñ Moustapha Basiiru ci organisation màggal gi ba ñaare foo masaa gis sëriñ Moustapha Basiiru da gis maam Ceerno moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ci wet gi ci diirub li fi sëriñ Tuuba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke nekk te fob lii di organisation màggal gi teg ko ci loxoy sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddiim moom amoon na relation bu yaatoo yaatu ak kii di cheikh awa balla mbàkke ba tax na tudde na ko ñaari doom moom kii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke kam ko njëkk tudde dafa teel a génn lii di àdduna mu dubbeewaat ko kaneen kim ko duppee nag moo nekk xalifa général des mourides jamono ji di sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ cheikh mati lay mbàkke ibnu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tax na kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke bi mu sancee dëkk boobu di tuubaa daaru marnaan wala bi mu dëkk boobu di daaru marnaan ci atu 19 1933 diirub li fi cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nekk li di tabaski ak korite ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor la koy jullee ndoog cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ngir ko léré sëriñ cheikh Mbàkke Gaynde ma amoon naa relation kii di sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke ba taxoon na sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke faboon na doomam di soxna Baali Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke ak kii di sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke jébbaloon ko sëriñ cheikh Mbàkke Gaynde Fatma moo jur sëriñ cheikh Abdul Ahad Mbàkke mi sëriñ cheikh Mbàkke fayee mbooleem ay rakkam kii di sëriñ mbàkke màddina itim kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke amoon naag moom relation ba faboon na doomam itam jébbal ko sëriñ mbàkke maddina moo meññ soxna daba mbàkke bintu sëriñ mbàkke maddina ak mbooleem ay rakkam sëriñ elaaji tàkko mbàkke bu mam cheikh anta mbàkke amoon naag relation yu yaatu kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba ñoom ñaar sax ñu yéeme lañ woon ci wàllu lii di xaritoo ndax kii sëriñ elaaji tàkko mbak bu maam cheikh anta mbàkke sëriñ cheikh awa balla dërëm ak ngërëm loolu itam xamoon na ne daaru muxti kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo fay ab cërëm ba tax na relation yi yéeme woon na lool sëriñ cheikh awa balla mbàkke ak El Hadji Tàkko mbàkke bu maam cheikh anta mbàkke ñim séqal maam Cerno ibrahima faati mbàkke nga xam ne ñoom la bokkal benn waajur wu góor ñoom itam ñu ci baree bari tuddee nañ ko lii di doom moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke ñu ràññee ci kim bokkal soxna awa balla jóob di sëriñ moodu awa balla mbàkke tuddee na ko lii di doom ak mbooleem ay rakkam yum séqal maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru suñ mbokk yeneen tarixa yi muy lii di tiwaawoon itam amoon relation lañ ak kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba tax na maam abdul aziz si malik da baax daana wax ne képp ku laal sëriñ cheikh awa balla mbàkke mel na moom nga laal ci wàllu relation sëriñ aadi turé bu faas turé moom itam ko amoon relation la ak kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba tax na kii di sëriñ aadi turé tudde na sëriñ moodu awa balla mbàkke doom ak kii di soxna awa balla jóob doom ngir kóllëre gum amoon na kii sëriñ cheikh awa balla mbàkke loolu itam taxoon na tëli bi nga xam ni moom moo jóge daaru muxti di dem daaru marnaan keroog biñ koy natt ci njiitul Léopold Sédar Senghor bi jiite woon lii di réew mi maam Ceerno Ibrahima Faati moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke mi ngi doon wax kii di Léopold Sédar Senghor tëri bi fu mu jaar jaar ci dëkk bii di Fass Touré ndax sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke kat mi ngi ma doon xamal ne maanaam yoon wi bis buñ ko nattee fu mu man di jaaritem bu mu teggi lii di Fass Touré loolu moo waral tëli bi jaar Fass Touré waaye mënoon naa jóge daaru muxti dem daaru marnaan te du fa jaar ndax boobaa yoon wi sax foofu lay gën a jube waaye kóllëre gu ñaar ñooñu Kaolack wëri wëri jaari ndaari tali bi jaari Fass Touré Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack itam ko amoon relation la ak kii di Serigne Awa Balla Mbacke ba tax na itam Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke daana dem Kaolack ay yoon di ko ziyaare ji moom Cheikh ca aj ga ba tey ci relation yooyu amoon ak lii di kilifay diine yi ñu ràññee ci ku ñuy wax Seydou Nourou Tall ku jaxasoo woon ak kii di Serigne Awa Balla Mbacke la ba tax na ñoom ñaar kenn ku ne daana seet ci sa moroom kii di Seydi Lamine Kunta bu njaasaan itim ku jaxasoo woon ak kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke la ak ñeneen ak ñeneen ndax kët ku lim ñi sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke jaxasooloon daa juum lii di administration bu Sénégal itim rawatina ki fi nekkoon président de la république di Léopold Sédar Senghor itim ku amoon relation la ak kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ba tax na daaru muxti daaru marnaan sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke Léopold Sédar Senghor moo ko godrongeel lii di yoon woowu ci atum 1978 relation boobu mu amoon nag kii di Léopold Léopold Sédar Senghor tax na bi mu bàyyee réew mi itam Abdou Diouf wéyal na lii relation ba ba tax na ci atum 1981 itam bënn na ab forage ci dëkk boobu di Daaru Marnaan ci atum 1991 lañ lañ taal lamp Daaru Marnaan yi ci njiitul président de la république bi fi nekkoon di Abdou Diouf ginnaaw relation yooyu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke amoon na kii di président Léopold Sédar Senghor te ginnaaw bu fi bàyyi ko président de la république bi ko wuuti di Abdou Diouf wéyal ko ci ak njabootam kii di Ahmadou Mokhtar Mbaw bi jiite wàllu assise nationale yi moom itam wëla réew sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke la woon ba guddi keroog ci atum 1951 jàpp 1952 bi soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim toggee ñaari ginaar yooyu fas yéenee tàmbali bisub laylatul xadar bi te yitoon ko kii di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ci guddi keroog googu oto bi yóbbu woon ñaari ginaar yi Tuubaa otob Ahmadou Mokhtar Mbaw bii jiite assise nationale yi la ci loolu nag la sax muy relation ak liggéey ak nag lu am it magam ja kii di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ndax moom lay xoole maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak mbooleem nag ñi mu séqal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo xam Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke ba ci kii di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke liggéey ak tedd ak am lii relation nag la yare lii di njaboot gi ba tax na doom jëm fi bàyyi di maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ci loolu la wéyal dëkk boobu ko waajuram bàyyee di daaru marnaan taxawal na fa nag lii di jumaa ci mai 2000 ci la ko cheikh Mourtada Mbacke inigré ci ndigalul sëriñ Abdou Khoudous Mbacke mi toog toogaayu maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru ak kii di sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ba tey dëkk boobu di daaru Marnaan maam Thierno Ibrahima Faati moom sëriñ cheikh Awa Balla Mbacke taxawu na dëkk ba ba képp kuy yeewoo ci dëkk boobu di daaru Marnaan jooyoo sëriñ cheikh Awa Balla Mbacke moo xam ci nekkiin moo xam ci ay jafe-jafe yoo am ndax kat xam na ne képp ku fay yeewoo sëriñ cheikh Awa Balla Mbacke moo tax moo tax ci côté bu ne jàppale aw nekkiin njaboot gim séqal waajuróom wa sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo xam ay rakkam lañ kenn ku ne itam taxawu na la ngir di la xoole jëmmi sëriñ cheikh awa balla mbàkke ba tax na kii di maam Cerno ibrahima faati moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke kuñ war a roy la ci yoon wi noonu mu mel itam ci njabootu sëriñ cheikh awa balla ay rakkam itam noonu lañ mel ci ëtt boobu di ëttub kër sëriñ cheikh awa balla mbàkke ndax kat loolu la leen sëriñ cheikh awa balla mbàkke yare sëriñ ahmadu moxtaar mbàkke moom itam ci dëkk bii di daaru ridwaan dañ gën koo xam ci bayti mbëri béy moom lii di forage defar fa itam lii di jumaa nekk fa nag di bay di yar ak di jàngale ndax seen ndonal waajur wakat lool dong nag la kii di sëriñ Muhammadul Mahfuus Mbàkke ibnu soxna Maymantu Mbàkke ak kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ci dëkk bii mu féete itam di daaru waxa moom itam tabax na fa lii di jumaa di jàng ak di yar tabax fa itam lii di ay daara fa séenee wéyal itam ndonal seen waajur wa sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke seen rakk ji di sëriñ Atteex Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke jàng ka jàngale ngir fas yéene wéer rek seen ndonal waajur wa sëriñ cheikh awa balla mbàkke ak mbooleem nag njabootuk sëriñ cheikh awa balla mbàkke gi ci loolu lañ nekk ndax kat bu ëllëgee buñ dajeeg sëriñ cheikh awa balla mbàkke man na ko ne lang ñu bàyyee loon ña nga ca kon caa jëf yàlla na leen sëriñ cheikh awa balla mbàkke fay ci jëf jim leen bàyyeel te ngeen wéyal ko jëf jooju mu leen bàyyeel tañu ñu ko muy lii de ay relation ak képp koo xam ne nii kilifa nga sëriñ cheikh awa balla mbàkke déplacé wu ñëw seet la defoon na ko rakkam di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim muy borom laylatul xadar ba tax na am naag ñetti bant kii di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim muy soxna Baali Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke ak kii di Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke soxna Maam Faati Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ak kii di Sëriñ Muhammadul Mahfuus Mbàkke ibnu soxna Maymunatu Mbàkke ibnu Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke soxna Maam Faati Mbàkke mii sax lañ jébbaloon kii di Sëriñ Mustafa Mbàkke Falilu moom meññ woon ngir sëriñ Cheikhouna Mbacke Bawal construction soxna Baali Mbacke lañ jébbaloon sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo meññ sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sax lañ dénk commission màggalug Touba gi wala lii di cellule communication màggalug Touba gi sëriñ Modou Mahfous Mbacke moo yore ndonol soxna munatu Mbacke ba tax na ci relation yooyu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke amoon kii di sëriñ Modou Sow Ba nekkoon seexub sëriñ Touba Seexul Xaddiim te dëkk fii di Sura keroog àdduna kii di sëriñ cheikh awa balla mbàkke fekkee woon na dencub sëriñ moodu saw ba ndax kat kii di sëriñ moodu saw ba ko amoon relation ak maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la ba tax na sax tudde woon na doom kii di maam cerno ibrahima faati loolee nag sëriñ cheikh awa balla mbàkke xamoon na ne daaru muxti am na cër ci kër googa ba tax na lu masaa xew ci kër googu dana ko fekke cheikh mohamadul bachir mbàkke ginnaaw buñ bokkee wàllu kokki teeni waajur boole sant lii di jóob taxoon na itam mu amoon relation ak njaboot googu ba mbàkke keroog bi mu génnee lii di àdduna moom itam fekke na taxawub cheikh mamadul bachir mbàkke moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke kii di waajuram maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bi mu génnee àdduna ci atum 1943 sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo ko taxaw ci teewaayu cheikh isaa jenn borom jenne ak lagan ak sëriñ moodu awa balla mbàkke mi nekkoon taawu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru kon ku daa doxug mbokk la moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke ci lool nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1976 ci dëkk boobu di daaru marnaan gi mu sancoon turandoo maam cheikh anta mbàkke ba di sëriñ cheikh awa balla mbàkke mi ngi génn àdduna bisub dibéer ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakk ji gàmmu ci atum 1396 ci gàddaay gi dibéer ñaar fukki fan ak ci weer wi di ji gàmmu ci atum 1396 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 25 avril 1976 dimanche 25 avril 1976 sëriñ cheikh awa balla mbàkke dimanche ci guddi la génn génn lii di àdduna ba set di altene di ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di rakk ji gàmm ci atum 1396 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di rakk ji gàmm ci atum 1396 ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 26 avril 1976 lundi 26 avril 1976 lañ ko jébbal boroomam nag ci dëkk boobu di daaru marnaan ci teewaayu xalifa général des mourides sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak kii di Cheikh Abdou Khader Mbacke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim ak sëriñ abibu mbàkke bi nekkoon imaamu jumaay tuuba ak kilifa yu baree baree bari ci yoonu murita cheikh abdu xaadir mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci daaru marnaan ci feebar bu ko tëraloon ci dëkk boobu di daaru marnaan ci biir feebar boobu sax sëriñ abibu mbàkke imaam ñëwoon na seet si ko di ko wax na cheikh awa balla de li la waroon lépp def nga ko lislaam jëmu la te amul benn gàkk-gàkk itim def ci lislaam bi lii di mbokk géeg lislaam ji loo ci waroon dox dox nga ko kàllaama sëriñ cheikh awa balla mbàkke keroog bi ko sëriñ abibu mbàkke imaam seet seet ci daaru marnaan ci wéradi googu ko daloon loolu la ko wax ñu teg ci ay fan sëriñ cheikh awa balla mbàkke dem doomu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ji ay xalifaam nag nii la tëdd moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke maam cerno cheikh awa balla mbàkke muy ki mu duppee waajuram wa maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko wuutu ci atum 1976 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ njabootug sëriñ cheikh awa balla mbàkke gi mook ay rakkam ak mbooleem ñum séqal sëriñ cheikh awa balla mbàkke moo xam góor ak jigéen ndax kat moom jëmm jooju di maam ceerno ibrahima faati mbàkke moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke sag la ci daaru marnaan rawatina ci njabootug maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ cheikh awa balla mbàkke nag am na bis buñ koy fàttaliku muy ñetti fan ci weer wii di weeru tamxarit di bis bu mu bàyyi ko wan ci màkkatal mukarrama ginnaaw bu matalee ponkub lislaam di aj màkka ñetti fan nag ci weeru tamxarit rakkam gi jàpp di ko ci fàttaliku màggal gi nag fàttaliku nañ ko ay ati at ci nekkinam doomam ji di maam Ceerno Ibrahima Faati moo ko daa fàttaliku ci nekkinu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ginnaaw bu fi sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke bàyyi nag njaboot gi wéel nañ bis boobu di ko ko fàttaliku muy ñetti fan ci weer wi di weeru tamxarit màggal gi nag jaar na ci dëkk yu baree baree bari laataa ñu koy indi ci dëkk bii sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke tëdd di daaru Marnaan ci atum la sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke jóge lii di màkkatal mukarrama ci ponk lislaam yooyu suñ borom santaane tam mataloon ko ci atum 1952 nag la taawam ba maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sos màggal gi ci dëkk bu ñuy wax xam naan xam naan mi ngi ci suuf si di mbaakool ci ginnaaw Mbàkke Kajoor foofu lañ ko màggale ci atum 1952 ba atum 1954 ci ñetti fan itam xarit bi bis bi sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke jógee Màkkatal Mukarrama ginnaaw dëkk boobu di xam naan jëlee nañ màggal gi nag foofu indi ko nag dëkk bu ñuy wax Tuubaa Roof ci atum cinquante cinq ba atum 1974 ci dëkk boobu di Touba Roof lañ ko amale muy ñetti fan yi tamxarit di bis bi Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke jógee ci dëkk boobu di Màkkatal Mukarrama ci atum 1975 lañ ko jëkk a màggal nag ci dëkk bii di Touba Daaru Marnaan wala Daaru Marnaanuk Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke di dëkk bu Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke sañ ci atum 1933 màggal nañ ko fa benn at ci nekkinu Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke wala ñaari at ci atum 1976 ca déwén sa nag la Serigne Cheikh Awa Balla Balla Mbàkke génn lii di àdduna kon lii mooy màggalu Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke di ñetti fan itam xarit ci dëkk yi itam la jaar am na nag beneen bis buñ koy fàttaliku muy bëccëgu ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakk ji gàmm di bis bi mu génnee àdduna ci weer wi di weer wolof doomam ji di Serigne Ahmadou Mokhtar Mbàkke moom Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke moom itam moo koy fàttaliku ci bis boobu ci dëkk boobu di daaru marnaanuk Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke kon ñaari bis yi la Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke am ci doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ja rakku sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ja ka ñu duppee maam Cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm baayu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal ci doolay xaritam ba Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke Baara Mbàkke amiin